ci ko jaar nañu génne ko ci jamono moo tax ñëw ñu tuddee leen ko Xadija kenn du laa ko waxam moo njëkk a roy julli ci Seyduna Muhammad suñ la laajee ku njëkk gëm ci diine bi Xadija la gannaaw Muhammad Xadija la bi yonent bi di julli bi mu kàbbari jigéen a ko njëkk a roy muy Xadija diine bi ñuy jigéen lañ ci njëkk a roy muy Sumayatu Xadija moo financé yonent bi ba mu yegsi fi mu yegsi koo ko defe naa bu ñuy sédd yonent bi ñamu njulli selbe ba ca la kon Sidi Dieng loolu moo tax. oustaz nga may ma dina dina desiwaat ci beneen euh, nga sànq da nga wax ni euh, jot na pour que mhm. euh, jamono bi ni mu tëddee léegi. Mhm. te dafa am ñu ngeen di mhm. ma gis ni ci saaba yi daan ànd ak yonent bi. na ci ñoo xam ne nii am na ci koo xam ne ci ñun la bokk. muy Bilal est-ce que jotul euh, ko ci dugal xam nga dangeen ngeen cee seegul fan yii di ñëw rek am na guddi gu mag gu ñuy góor gi Mortala moo ko organisé guddi ga Bilal la ko tuddee ak Hamza ak Sumaya fekkoon na ñun xalaat nañ ko ba tëral ko tuddee nañ leen guddi ba pare fan yi ci gan yi du yàggul. jàpp nañu bis bi man maa leen man maay dem ca daje ba maa koy taxaw kon euh, loolu xalaat nañu ko parce que ñi ñu war ñi ñu war a ciblé dafa bari ku mel ni Bilal bi nodd di ñëw wàccul ci Bilal ci Sidna Omar la wàcc Omar moo doon nelaw géntu ko ak beneen waay kee njëkk a yeewu ñëw wax ko Abdallah yeewu ñëw wax ko yonent bi ne ko damaa géntu ñu wax ma baat yi mu ne ko wax ko bilaal parce que moo leen gën a xumb baat mais Bilal làmmiñam seetuloon dafa nekkoon a ajamiya maanaam làmmiñu dafa dafa dafa dafa taq mënul prononcer dëgg-dëgg baat yi ba bu daan nodd sax dañ koy reetaan araab yi naan bu dee wax ash au lieu que mu ne ash mu ne as ñu di ko ci ree ci lay yàlla wax yonent bi ne ko siinu bilaalin indalaay siinun siinam juuj ji firi gaynde man jàppewuma ko gaynde maa ngi koy jàppee baatu seede bi mu bëgg a wax kon yiineem laa jël mais jëluma waxam moom lañuy jox nodd gi parce que moo ci gënoon xumb baat naka la ko yëkkati rek na Omar daw ñëw Moustapha ne ko lan la mu ne ko léegi laa gént ñu may wax baat yi déglu li fii yonent bi dugg daf ne amoon naa ci xel ñaar waaye gëm naa ko ndax Omar lu mu wax dëgg la ci la nangu ñu saxal nodd gi nag mais konoon du sax waaye ginnaaw Omar na gént na ko rek mu saxal ko Bilaal moomu nag moo daan noddu donc euh, yeyoon na ko mais yeggaguñu ci yàlla def rek euh, organiser nañ ko bés moo xam sa ak Sumayya après gàmmu gi lañ koy def Baye Mortala moo ko organiser kon donc jëf loolu fekkoon nañu xalaat ko voilà Sidi. voilà euh, jërëjëf Sidi Dia ñu jox kàddu <coughs> ma bëggoon a xam de mooy. Euh, ñi nga xam ni ñi ñoom ñooy jàngkat yi danoo am waxtu ci programme mu gàmm bi ndax dañu leen tànn wala ndax ginnaaw guddig yonent bi la ku ñëw rek mën naa jël kàddu wayam déet beneen bi mooy ñi nga xam ni nii tamit ñooy waxtaankat yi te war waxtaan ci thèmes yi nga xam ni nee nga waruñ cee génn ndax nañ dañ leen a tànn ñoom tamit wala dañuy ñëw rek euh, ku ci nekk daal di jël thème ca bis baam déet loolu euh, bu weesoo ñu bëgg xam ñoom ñi nga xam ni ñi ñoom ñooy nit ñooñ nga xam ne dañoo war a ànd ak ci liggéey bi ndax mën nañ xam seen tur loolu laa fas yéene. jërëjëf euh, Étienne waykat yi defe naa ñi yàgg fekkee gàmmu gi gàmmu gi amul tiijaan a koy woy amul murit amul xaadir amul laayam ni mu tëddee mooy ku ñëw rek am nga ci wàll ci way defe naa boo ko mosoon fekkee danga xam ne loolu dëgg la. bañ nañ ko ba tànt bi boo xoolee doo fekk foto benn sëriñ hmm. ma soo ko ciy gis hmm. waaw duñ ko ci def même carte d'invitation yi amul kenn kuñ ne la moo koy firi parce que Étienne li tax man duma def loolu tey bu ma ne Étienne moo may defal sama conférence yow man ngaa bañ ñëw mu yàq sama programme parce que sénégalais dafa am benn mentalité am lii la mooy buñ ne Étienne rek xel yëpp ci moom lay ne suñ ñëwee toog keneen jël dañ naan ndax kee mooy Étienne ñu ne ñëwul découragement am moo tax su ngeen seetee carte bi ji Mbay Donde lañ ci def comme woykat dee na bu yàgg faatu na bu yàgg-yàgg mais kóllëre tax ma bàyyi ndax man dee du ma teqale nit su ngeen déglu avant premier yi Njaay xaalis a koy ba léegi kàddoom ngeen di dégg et pourtant faatu na bu yàgg mais kóllëre la Mbay Donde mi ci nekkoon mu ci continuer fii ak man maa ngi koy mën ak ñi ma ko àndal mais képp kuy woykat boo ñëwee woy rek mbay doon da nga wutuwaale moo tax woykat yi amul ñu ñuy cité boo seetee carte bi moo paree naa la ko jox nga liir ko doo ci gis benn woykat bu dee ñiy waxtaan itam waxta amuñu woy waxtaankat mën naa laa li ma lopp fukk ak benn yu ko yu gàmm man sama mbir noonu la tëddee parce que du ma nangu mukk ne Etienne koy gàmm yaa koy firi déedéet parce que guddi gi dafay yaatu te ñiñ ko tuddee dafa bari te yow rek attanoo ko parce que buñ la ko joxee nga bëgg a commencé ci yenent bi ba ci suuf doo dem mën na moo tax tànnuñu kenn newuñ soosee koy firi newuñ Babacar Ndaw waaye bu jotee nag borom xam-xam yi fi ne ba macha allah ku ne da nga ci am kàddu ñun noonu la ñuy séddalee suñ ñëwee dama naan kenn ci ñoom ku mu ci mën a doon waxtaanal ci diw diw na waxtaan ci diw yow boo jógee waxal ci diw yow waxal ci diw bu ko defee temps bi ñu mën ko gagné loolu la ñuy tëralee amul na kenn koo xam ne jël nañ ko ne la kii moo koy gàmm amul ci gi gàmm déedéet gàmmukat bi daal ñu ngi koy xamee ci bu borom xam yi dajee kenn ko ni ñu jël kàddu jox la buñ jàppee ne da nga wax lu nu satisfaire ci lañ koy def voilà ci lañ koy def mais duñ jël rek soo si ñëw na jàng nañ jox ko non non dañuy seet ñoo xam ne wax dëgg yàlla li ñu bëgg man nañ ko ñu jox leen ko waaw ñooñu daal ñun la mais mënuñ la siteel nag nee na Jean wala Paul ñoo koy gàmm déedéet moom daal Bamba mos xam na rek yegg si xam li fi xew rek la voilà. voilà élève jërëjëf euh, laata may jox ci naataango Mouhamed Sylla bu NJ TV man bëggoon naa si am ñaari fànn yu may laaj euh, c' est vrai dañuy faral di wax même politiciens yi promenade bi fii du ku nekk moo ko ñemee parce que aussi fii mbooloo euh, pour mu mën a fees mbooloo aussi fu ñuy dajee dina laaj. ñu jël matuwaay yëpp parce que fii ñu nekk ci espace public la wala maanaam nguur lañ ko dëkk euh, daaw bi ñu génn wax nga le maire Talla Sylla teel na la jox autorisation mm-hmm. parce que fii sax am na ñu yow sànq di laajte naan xanaa mbir mi suba la wala ginnaaw suba la mm-hmm. pour wane kilifa yu si am na nuñ ci taxawee mais si wàllu kaaraange de façon général est-ce que matuwaay yëpp yemb na beneen bi par rapport ak euh, matuwaay yooyu ba xew-xew bu mel nii nga am ak jàmm yu bare ci sénégalais yi ay kilifa aussi fas na ñëw euh, ku nekk aussi am na lu la suñu borom cërale ñu toogoon gàmmu gi ba une heure du matin jot ñu ni président de la république wala xalif général euh, ñëw na demin si bunt bi sama war a dugg ndax jël nañu ay matuwaay également pour que bu ñëw aussi du yàq dara si protocole bi te daan ko teg jëmuwaayam ba du yàq dara si programme ñaar yooyu laa bëggoon leerlu peut-être si laa aussi mu ma tontu waaw. waaw jërëjëf Babacar Ndao eh, bu dee ci wàllu kaaraange gi jël nañ ci matuwaay parce que Talla Sylla ñu gërëm ko teel nañu jox autorisation xam nga c'est euh, bëri na c'est très rare nga gis kuy organiser gàmmu commencé tant bi samedi te mu war a doonaat samedi mu nekk semaine. waaye jël nañ ci matuwaay ndax am na danañ am sécurité bu doy bañ nañ ko ba biir tànt bi dana am ñu fi taxaw mais alentour bi ci biti am na ñoo xam ne bokkuñ ci gàmmo gi ñoom loolu seen itti taxaw wër tànt bi comme ni bâche yi waree tànt bi noonu la sécurité bi di waree tànt bi parce que boo nekkee ci biir dafa am idée ci idée sénégalais daf ci am léeg-léeg nga ne ci dara am na ko am ci biti lay toll rek mën na wax lu ko yàq baa mu def lu ko yàq donc da ngay sóoraale alquran moo ne xudu hidrakum day leen bàyyi xel lu ñëwagul donc loolu dañ koy prévoir chaque année ba daaw bi ñu commissaire boobu je crois gaañu na euh, defe naa ne gaañu na euh, daaw dama toog rek ma dégg sereen bi gars yi wàcc ñëw fekk ma fi ne ma commissaire moo wax ne mbooloo mu toll nii wuurul mu wàcc fii ci Thiès te waa police nekkuñ ci moo ñu yebal man leen acca doxal leen ñu ànd ak ñi fi nekkoon yàlla defal nañu suture nag boobu ba léegi yàlla ñuy suturaal benn problème du ci am du ci ñun nag xëy na ñiñ ñu ko tuddee seen barke yàlla mooy aar loolu parce que am na tur boo xam ne gis nga Babacar lii daje fi man am naa journée Tivaouane xam nga ci daara ñëw nga ca journée daara sëñ Babacar maa koy organiser danaa dem ba mi midi une heure tante bi du fees dañuy mujj ne nañ commencé ku ñoo fekk ñu ci kon bu doon Iran moo fi indi nit ñi Tivaouane war a gaaw a fees. kon danaa yëg ni du man ñan la ñu ko tuddee tey kenn ku ne da nga am yéene ne naa dem teew ndax yonent bi naa dem teew ndax sahaaba yi naa dem teew ndax soxla yi ñu ko tuddee naa dem teew ndax papaam ak yaayam donc ku ne am na koy teewal kon sécurité boobu bàyyi nañ ko xel tey jii ci guddi incha allah am naa réunion ak ñoom Tiwaawan mu ñëw muy euh, bu bu bu soppi sëñ Babacar danaa dajeeg tey ñoom tey ci guddi après buñ jullee gee bu neexee sunu borom bi ci des muy li nga wax. sóoraale kilifa gu ñëw bàyyi nañ ko xel dañ koy bàyyi xel bu baax ndax da bëri na koo gis mu toog am na yar bu toll ni bu Étienne yegg si woon tey mu jóg ne ko kaay toog fi parce que looluy diine am na discipline bu toll ni prévoir wuñu préparé wuñu pour Étienne fu muy toog mais ñii ñu nekkal Arouna tey bu seenoon Étienne day wàcc chaise ñëw ne ko toogal parce que bu échecgee ci la bokk kon réussite mbooloo mi la war a wut kooku moom prévoir nañ ko mais ci technique lay doon suñu technique gu liggéey la mais du siis yu ñuy rangale fee ne pour ñoom diw la parce que boo ko defee da ngay weddi sa bopp mais technique la nag waaw dañ koy am façon bu ñuy liggéey la ñun de kilifa ku ñëw da nga toog toogin bu baax te ñi ngi fi fekk duñ ñu jëpp donc loolu nag suñu technique gu liggéey la voilà. jërëjëf ñi ngi nuyu teew dafa am loo xam ne dañ ko seetlu ci yenn bis yi dañuy gis ne kilifa yi bu ñu gàmm yu mel nii amaan na dina am ci benn terexa bu ñu féete mais aussi suñ demee ci bis yi gàmm gi dafay am fu mu féete dinañ xam ci bii terexa bi la bokk te aussi sànq yaa ngi koy wax dañu gis bi yi ngay amal yëpp bu ñu xoolee sa base kenn di gis photo lan moo ko waral beneen bi aussi dafa am loo xamante ni tamit dañ ko seetlu sa bis day nekk bis boo xamante ni ñëpp ciy ñëw te ku xool li aussi xam ne financement moo ciy def te aussi mos ñu dégg Ibrahima Badiane ni bi kii lañ ko ci ñoo xamante ni ay politiciens wala ñu mel noonu aussi est dafa am ay partenaires yoo xamante ni ñoo lay jàppale pour bis mën a taxaw jërëjëf. ci laaj bu jëkk bi mooy xam nga tariixa dañu mas a ak Abbé Seck suma xarit la ñaari lu ñuy wax ci wàllu diine ñun ñaar la ñuy boole ba bi ñuy xeex dorog bi ñun ñaar la ñu boole te buñ toogee dañuy waxtaan ñun ñaar bés ma ne leen man del li ñuy wax dialogue diggante jullit yi ak chrétiens yi ma ne leen man moo boobu ànduma ci parce que lu ñuy dialogue amu fi laa nu fariqu bayna ahadin min rusul prophète yi benn yàllaa leen yónni kon jaam yi war nañu reconnaître ñëpp jox leen seen gëdd mu jeex mais buñ fi dugalee baatu jalaw rek kon ça veut dire am na kee nga fee kee nga ci côté bi mais loolu mënul nekk kon ñun mënuñu dégg ci alquran wama arsalnaaka illaa kaafatan linnaas yàlla def na yonent bi ma lay yónni du pour ñenn pour tout le monde la prophète bu ñëw danga war a wax ak ñëpp kon koo xam ne gëm nga ne yàllaa leen yónni nga dem di wax ci biir mbooloo wala ngay organiser ñu yëg ci organisation ba ne da nga koo féetale boor tooñ nga prophète bi yàlla yónni tooñ nga yàlla yi te wan nga ne ko maa ngi séddale sa mbooloo kon nooy def tey boo ci defoon photo kenn ci kilifa yi diine ku ñëw dana ah lii kat waa kër diw mais su fekkee ne dañ koo tudd noonu ku ñëw xool gisoo lu la wan ne li ñuy wax du dëgg da gis ne li ñuy wax dëgg la te ku ñëpp bokk na xam nga booli ceeb. gan gu nuyoo mën na cee lekk jarbaat ak sët ak kuy xaaraan mën na cee lekk mais su ba ca roon lal ba moom boroom kër gi rek ak caatam mooy tariixa yi dafa am borom mais bu dee diine ji ñëpp a ci xaj yeneen bi ñëpp xaj nañ ci bi des xam-xam ñëpp a ko bokk moo tax mbir mi du dem côté man foofu lay liggéeyee ci il euh, wa ma arsalnaaka ilaa kaafa linnaas ci aay boobu lay sukkandiku lu ñëpp bokk nag na ci ku ne ñëw jël wàllam léegi-léegi Babacar ma dégg ci politiciens yi nga dégg ko naan waaw damaa génn ci parti sànq parce que gisuma sama bopp mais nit kenn du ko wan boppam seetu buñ ko tegee te ko buuxantewul doo gis sa bopp buuxanteel ba gis sa bopp ku lay xëcc di la buuxanteel naan la saxaar kanam baa ngi ni loolu amul fenn wax bu daanoo la rek parce que dama fa dem gisuma sama bopp non da ngay yëg da ngay yëg ni ci laa yëg-yëg bi mu ngi ci ni ñuy séddalee ak kàddu yi ni muy demee Étienne yëg ne kon que pour doom aadama la te man doom aadama la jël naa sama wàll mais am na nu muy doxee du ñëw parce que danaan bokkuma ci diine bi mais su yëgee ne nag prophète yi benn yàllaa leen yónni nag te kenn ku ne la mu wax yàlla xaraama la ko waxul ne yonent yàlla Isaa waxam wératul gisuñ ko fenn waxul ne Mouhamad wératul waxul ne Moussa wérlewul li fi jaar yépp wér kon bu ñëwee war naa mën a jot wàllam ci principe bii lañuy ñuy organiser aussi boo seetloo Mouhamad looloo ñu dimbale ba li fiy daje di fi daje ndax ku ñëw wóor na le ne danañ la tibbal nga dem mais kum wóor ne boo ñëwee doo séddu loo fay ut te yàlla wax na ne bépp daje boo xam ne boo demee doo fa yokkoo boo fa demee ñàkku amu fulla nit fu muy yokkoo lay dem mais fu muy wàññi ko du fa dem alors que loolu mooy benn bi bi ci des muy ndax dañoo am ay partenaires non non amuñu ko amuñu ay sponsor amuñu dara benn sponsor lañu am benn partenaire mooy Maulana tabaraka wa taala suñu borom yàlla daal mooy suñu partenaire yàlla mooy suñu sponsor point du génn ci Sénégal du lu génn Sénégal gis nga bu doon mitin la tey Etienne mii jiite parti ne ma Iran defal mitin Tiwaawoon bo yaa may financé baa ma weeje la su ma ko defee am problème wal fajir laay dem wala ma dem TFM wala ma dem ci beneen télé weeje la baa ma dem su defee parce que yaa ma ko def loo mais est man gàmm gi makki Sall ma ko sant yëgul sax ne daan naa gàmm kon la may am du ma ko àcc ci Macky sàll du ma ko àcc ci ministre parce que gàmm gi santuma ko ñun ñoo seet rek ne nañu gàmm kon dañuy làmb suñuy poos suñ ko manee ñu def suñ ko mënul ñu bàyyi diine loo mënul bokku ca loo man rek moo ca bokk donc moo tax engagé wul kenn lu dul équipe bii ko seq yàlla moo ñuy jox nag liñ ciy def ji nga li gën bon ñaar ñaar danañu reyanteeg nit ëllëg muy xaalis ak nelaw soo ne Etienne yaa ngi nelaw mu ne noonu nelaw ma damay ko rek te mu ngi nelaw échec yor nga xaalis mu ne yoruma dara bi ci bu koy génne da lay wan gannaaw xaalis doo ciy génne di wane gannaaw ba yooyu dafay yoo xam ne jullit du ko def nit bu parce que alal yaa koy liggéey xaalis yi ci poos yi nit a ko liggéey caméra yi ma wër portable yëpp nit a ko defar mais ci xel mu yàlla liggéey ci lañ ko liggéeyee donc ñun duñu yërëmtalu naan waaw euh, vraiment suñu mayoon ceeb baa bu ñu mayoon lii soxlu yëlwaa nunu mais nag dama ko dañ ko mooy amul dal gàmmu gi amul ay dal pour par ñu naan fii dal yi dal yi dal yi non non dal su amee xam nga lu muy indi ku ba pare toog attaay baa nga nelaw voilà doo dem ca tànt ba aussi man nga faa defu caay-caay man nga fa mooy yàlla ci gàmmu gi te Iran yaa ko sabab yaa ngi nga àndal amul dal amul benn cérémonie guddi gi dong la làmp yi leer na naññi fajar lay tas ku jàdd sa affaire ñun fi ñu commencé xam nañ ko fa ñu yem xam nañ ko alors que loolu mooy benn partenaire partenaire bi nga xam ne mooy jox ñëpp daal muy yàlla mooy suñ partenaire mu leer nàññ mooy suñu ndimbal ŋàññi ñu kenn seen tuuñu loxo kenn yàlla jox nañu liñ ciy def nit du nëbb wërsëgu yàlla ku def loo mënul nag mooy tax nga mere nit ñi da nga li ma dal gaayee ma ko teg waaye ñun nit ñuy gàmmoo yomb na gàmm koo xam ne rayoo ay nag yu dul jeex rayoo ay gëlëm togg ay tonni ceeb fii ngay yem or yàlla dimbale ñu nag fii mbooleem ñi taxawaalu fii fii la ñuy añi parce que dama leen di wax ne togg leen lu doy samedi dimanche di mardi mercredi di vendredi samedi ba dimanche ñiy jaar fii ñëpp di jaay fii lañuy añee si parce que loolu la loolu la waajtaayu bis bi laaj parce que yëfu diine la te jullit day yërëm moroomu jullitam te yàlla dafa waxoon ne ku yërëmul nit ñi yàlla du la yërëm voilà. jazakumullah xayran El Hadj euh, donc xam naa laaj bu mujj en wolof euh, Cheikh Tidiane Kane bu Alburax FM bu Tiwaawoon léegi bu ñu ko jógee Aliou Badara Socé dañu leen defal benn synthèse euh, en français laata ñuy yëkkati jotaay Cheikh Tidiane Kane la ko. voilà merci Babacar. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu mbooloo mi fii teew yëpp ñu ngi leen di nuyu. Euh, di nuyu suñu sëriñ euh, Iran Ndaw am na ci question yu ñu ko bëggoon a posé dafa mel ni sax tontu na ci ba pare par rapport ak euh, budget gàmmu gi ak it par rapport ak sponsoring beeg yooyu à part moom répondre na sax yenn yi parce que nee na à part soxna joor mi nga xam ni moom moo ko defal installation bu rafet bi daanaka amul benn partenaire boo xam ni dugal na loxoom ci gàmmu gi Euh, xëy na nag am na ay ndongo yu nekk fële Tiwaawan ci daara ji ñoo xam ni euh, moom mii moo leen jiite euh, ma ko doon laaj kon comme question rek ban sas nga jox ren gone yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji fële ca Tiwaawan ndax sànq wax nga wax bu am solo ni am na xale yu ñëwoon daaw ñu wàcce ren nga ne nañu toogaat ci chaise yi parce que xale aussi dina am engouement boo xam ni peut-être mag ñi amuñu ko ci gàmmu gi kon yow lan ngay xaar ci xale yi nekk fële ci Tivaouane rawatina ci daara ji muy say taalibe jërëjëf jëf jërëjëf euh, Cheikh Tidiane Kane bu Alburaax Tivaouane xam nga Cheikh xale yi ci daara ji ñooy def seen effort ñëw ci gàmmu bi man ma jox leen effort même bi ma ko daan def Dakar dañuy luye seeni kaar ñoom dugg ci dem paas ñëw ñëw su gàmmu gi ñëwee fi mu ne ñii di tànt waa Tiwaawan a ngi ci waa daara jaa ngi ci juróom ñoo xam ne ci daara ji lañ jóge parce que itam bu la ñeneen di jàppale wax nga war ngaa jël nag ñi nga nekkal ñu jàpp ci ñoom it kon juróom a ngi ci ñoo xam ne Tiwaawan lañ jóge mais nag du ñoom dañ laan leen da ngeen di cotiser pour gàmmu gi déedéet ñemewuma ko konoon ma wax ko daayira ñii sama ginnaaw ay daayira lañu ñii ñëpp ñii ci suma ginnaaw ay daayira lañu Cees la ñu ne kenn ku ci ne am li ma seq yow am nga conférence maa la koy defal ñii seen gàmm maa leen koy defal ñii toog ñii ku ci am nga programme la koy defal ñii ma ñii ma seqal mais du dërëm bu ñuy réunion dama naa leen lu waay am ci xel mu rafet jox ñu la koy doxal du man du yéen na xel mu rafet ñëw rek parce que xel mu rafet moo mën a defar li nga bëgg mm-hmm. nit defar na bisam ba lépp yemb ñàkk xel yàq ko donc duñ leen sas dara euh, li taxit duma ko def tey buñ noonu gàmmu gi buy ñëw daayira bu ne day joxe temps mais bu gàmmu gi ñëwee daayira bu ko amul doo ñëw réunion doo ñëw réunion añ yi ngay di gis man maay joxe suma dépense ci damay jënd ceeb jënd dëwlin jënd li war ci lépp ci ndékkeeg lépp ba mu yemb ma ne ki togg ñaata pour pour ndugg rek chaque jour quinze mille francs mooy ndugg mi waxuma ceeb waxuma diwlin waxuma meew waxuma café waxuma suukar loola moom wàcce naa ko ba pare mais chaque jour lu ñuy duggee pour togg ceeb bi quinze mille francs pour ñii di tànt rek ak ku fi romb lekk donc loolu mënuñ ko cotiser taalibe yi ci daara ji mënuñ ko cotiser parce que man bi ma yor daara ji oustaz dafa ma ne tey ngay laaj deux cent francs ndax Ibrahima daara dafa métti nga am lay jëndee saabu ma ne ko su ma fay ko daara ji tas bàyyil ma sacrifié wu rek parce que bu ma fayu koo ku sa baay amul doole doo fi indi sa doom wala boo ma fayul ma ma dàq la parce que fayee ko dafa neex payoor ci boppam moo neex yi nga Étienne mi bis ñu ko dàqoon mu jéem ma dem nag euh, église ba rek ne defal leen ma ñaan ñuy dimbale ma jëlaat ma waaw il faut Étienne nga jéngu ji mais bu fekkee Babacar li ngay dara jógewul fenn mais man ban bu ma doon sa ndongo yi kon fi may liggéey ñu fay ma maa ngi liggéey Sen TV fayuñu ma dërëm 15 Babacar a ngi nii Sud FM ñu ma dërëm man du ma laal salaire laalu ma ko fenn du Sen TV du Sud FM bi ma nekk ak ñoom kii moo nekkoon sama technicien loolu ñëw ñu boole nday fàttu ñu bool du gàmmu du conférence yi may def di fayeeku jamais mais yàlla may suturaal parce que li ñëpp ay def laay def job boo jobul nooy def doo liggéey man je travaille comme ah lu xew ah mais da ngay toog fii sol ay garambu bu soli maraakis eh, sol ay weer di gëmm ak xippi boo fa jaaree silmaxa doo al ko jaru ko parce que góor day def yëfu góor bu liggéey jotee nga dem liggéey comme ñëpp moo tax amuñ sa suñu kenn dara ñii toog ñu ngi nii dëkkal leen micro kenn ñemewu ci ne damay joxe nangam laaj nañ ma nangam jamais amu ci waaw amu ci kon nag loolu matériel bii ngeen gis ni cent un mille laa ko loué bi ci digg bi bii ñuy tànt nii hmm. waaw lii ci des yëpp joor mooy moo moo ko fi def tout dërëm laajuma ko fifteen hmm. su ma ko joxee mu ne du ko jël chaise moo koy indi xanaa benn cinquante mille bu ma génne pour les cinquante mille defe naa ñaata chaise la war a doon moom laa ci joxe ah bu dee chaise fukki dërëm waaw hmm. ah voilà donc loolu laa luy ci chaise ak yu ma abal jeex na parce que booy def ngir yàlla am na ñu bëgg yàlla ñoom it dañuy jàpp ngir yàlla ah parce que Étienne du ne ah danaan lii kat moom yëfu yàlla la ti man jaamu yàlla laa kon lii war naa ci mën a taxaw am naa benn chaise Iran am bu leen ko damm nag waaw Babacar ne am naa benn taabul jël leen ko ñii ku ci am chaise indi nga ko fi ku am basang indi nga ko donc loolu rek la moo tax euh, ñun amuñu loolu ñuy laaj taalibe kon ñu fayee ko fa ñuy liggéey parce que ku bàyyee ku bàyyee salaire boo xam ne. borom nee na loo proposé ma fay la ko nga ne ko proposé wu ma dara bàyyi ma ma liggéey ti dem sama yoon defe naa doo bàyyi loolu di laaj ay ndongo ti laaj ndongo nag dafa ñaaw jox leen ma nangam ñu dem sama gam cotiser leen ma du ma ko wax ñii ñoom aaru naa ngi nii kii oustaz la boroom xam-xam la waaw du dindi li ma wax kii ni kii noonu oustaz Dame Sakho oustaz Mouhamed Mbaye ngi grand sëriñ a ngi nii toog ak ñi sama ginnaaw ñoom Ousmane sopp na bi amul kenn mbir mi defa ne ak sama waa ji nee na ñuy tuddaale ko ah, Babacar donc loolu loolu rek la tëddee parce que itam nit ñi booy ànd ak ñoom te bëgg ànd ba neex bu leen teg dara ba leen ak seen bopp waaw da leen di bàyyi ak seen bopp soo leen tegee yenn sa rek ñu daw la nit ñi baleen ak seen bopp baleen ak la nu am loo am bokk kook ñoom soo amul ngeen bokk waxtaan mu jeex voilà